jataay في bi nag li ko waral mooy ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko nag si Cheikh Modou Mountakha tey si bëccëg rek rot ci jëwriñu Cheikh Fall ji di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda muy ndigal loo xam ne xañ na sax mën nañ ni miin nañu ko waaye Ah, taxaw woon nañ ko daaw euh, si ndigalul Cheikh Modou Mountakha muy bisu Zikrullah ah, sëriñ bi wax ne bis boobu nga xam ne moom la santaane woon daaw muy ñaar fukki waxtu yee ñeent vingt quatre heures yi ñu amoon si foofu si daru Minam muy bisub Zikrullah boo xam ne mbooleem kuy tudd yàlla daje woon na fa njabootu Cheikh Fall gépp ak njabootu Sëñ Tuubaa gi sëriñ bi jot na ndigal si Cheikh Modou Mountakha ñu taxaw waat bis boobu yi alxames yi suba ji bu dellusee incha allahu muy bisib suba bu nu tabaskee incha allahu bu dellusee sëriñ bi wax na ne eh, ndigal jot na ndigal si Cheikh Modou Mountakha ngir nu waat bis boobu yi nga xam ne mooy bisu Zikrullah eh, foofee sa kër Cheikh Modou Mountakha eh, li nga xam ne moo si yees rek xëj na ngir amut ay soppiku yu bari li si yees rek mooy sëriñ bi dafa wax ne ren dafa bëgg nu tàmbale ko juróom-ñetti waxtu si suba. Euh, taxawu ko ba juróom-ñetti waxtu si ngoon muy huit heures si suba ba huit heures ngoon kon dafay mel ni ab yendu la moom la sëriñ bi bëgg nu yendu ak moom yendu ak njabootuk sëñ Tuubaa gi yendu ak jullit yi ñu yendoo tudd yàlla mu kalimatu laa ilaha illallah ko taxawoo ba ngoon nu sukk fi kanamam mu ñaanal nu nu dellu toogaat di xaar ndigal sëriñ Muntaxa nag da saa boole ni ndigal li day cofu ko mu ngi digle fépp foo xamante ni fii àggoon na fa daaw mu ngi sàkku mu weesu ko ren maanaam soppiku gu si waxtu yi tekkiwul ni danoo soppi lenn si taxawaay yi si amoon sëriñ bi nee na nañ ko yaatal bu baax fépp fu tuddkatub yàlla ne képp koo xamante ni kii daal yaa ngi wuyoo maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na mi ngi lay woo alxames si suba ji bu dellusee si pencum daaru minam ñi nga xam ne ñoom la sant ñu taxawu liggéey boobu nan ko defe woon daaw ndigal laa ngi si ñoom dañ koy wéyal muy maam Cheikh Fall moom Chérif Assane Fall sikurulaahu dana jiite liggéey boobu ànd ko ak kuréelu sikar yëpp nga xam ne ñoom lëkkaloo nañ ci genn buum ñu ànd ko bokki taalibe yi su ko defee nanu ko taxaw woon daaw kenn ku ne taxawaay ba nga amoon nga fas yéene koo yokk kenn ku ne eh, yitte ja nga amoon nga fas yéene koo yokk ba sëñ Tuubaa Cheikh Modou Muntaxa li mu si séentu lépp ak li mu si yaakaar mu am ko na mu ko bëggee loolu mooy ndigal li nga xam ne moo fi léegi sëriñ bi waxoon ma ne ma naa ko yaatal ci bokki taali bi yëpp ñu xamee ko noonu kon bisu sikkurullah bi alxames lay doon muy alxames ci suba ji bu dellusee incha allahu juróom-ñetti waxtu ci suba muy huit ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon muy vingt ñu daje sa pencum Daaru Minam biir kër Cheikh Modou Mountakha ñu taxaw baatu tur yàlla woo wii ba mu àgg sëriñ bi teewlul ko boppam ñaanal nu nu delluwaat toogaat di xaar ndigal sëriñ bii mu ngi si soññi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem bunt kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi fu nu mën a ne ñoom ñëpp kenn ku si nekk na jottali ndigal li mu yaatu mboolem fu taalibe nekk mbooleem ku mën a tudd yàlla ñu dikk akub yar ak teggin akub dal ba nanu ko defe woon daaw ñu defee ko nu ko raw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.